salaamaaleykum mbokk internet yi ñu jàkkaarloo ak ñun ci wasaare làmb ak Lutte TV ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziare mu jëm ci bës bu am solo samedi 8 janvier wala boog 8 waa janvier 8 janvier incha allahu rabbi jëm Iba Mar Diop ñëw ak jam production comme niñ koy defee rek mu mel ni saison ren moom da cee taqrib ndax le huit janvier mooy nekk troisième journée ki saison bi ginnaaw bu mu ubbee saison Iba Mar jób bi esaat ba mu fees dell diggante Pape Ndoye ak Abou Ndiassé la woon ñu di déetawaay le cinq décembre mu dem fële nga xamante ne moom mooy arène nationale tëggoon fa Baye Mandione ak Koyantaan yamul ci loolu mu ne amateurs yi lépp la nga xamante ni bëgg na ko rek bëgg nañ ko rek daf koy defaat moo tax mu ñëwaat def derby Fass ak Lansar boole Pape ndoy ak Takké def ko drapeau ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Tall futur maire de Yoff ñu ñëw fas yéen waxtaan ak moom ci njukkal bi nga xamante ne tey Jamaïcain mu ngi ko koy delloo njukkal waaye nag di mu mel ni loolu Jamaïcain daf ko def pour pousser ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Yoff pour wax leen ni kii mooy bi nga xamante ne moom mooy tànn bi wóor Jamaïcain ngi nii ak jiri sama naataango après ñoom ñëpp danañ ci sànni ay kàddu waaye damay nuyu ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Tall bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yëpp nan lay waajalee le 8 janvier diggante Pape Ndoye ak Takké maa lay nuyu bu baax di la ziare Moustapha waaw ñu ngi lay fay euh, bala ñuy tàmbali nuyoo bi nuyu képp kuy seetaan euh, wasaare TV ak euh, Lutte TV mm-hmm. di tàmbale ci nuyoo bi Serigne Mountakha Bachir xalif général kuli murit di nuyu xalif général des Layènes mm-hmm. di nuyu xalif généraux yëpp di nuyu yow mu ma jàkkaarloo di nuyu tamit jàmm mm-hmm. di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi safoo làmb di nuyu axlu làmb yëpp di nuyu tamit euh, wa Yoff bu baax a baax a baax a baax di nuyu Dakar di nuyu Sénégal. comme ni ma ko waxee rek delloo njukko laa koy tuddee ndax moom tëggoon na bi passé stadium Iba Mar Diop combat bi stade fees dell mu amoon koo xamante ne moom la tuddee woon làmb ja dara desul mu joxe drapeau bi gisu ko moom mu jëloon ay décision ni làmbam sax dootu ko tuddee kenn. yàlla dogal mu dem ba xelam daj la mu ner laa delloo njukkal mu war a nekk jour bi nga xamante ne ci la ñuy ubbi campagne yi soit bi nga xamante ne Jamaïcain def na ko jëmale ko ci yow yan yëg-yëg nga ci am. waaw yëg bu ma si am dama koy rafetlu parce que nit moom amul dara lu dul ku ko yëg te lu mu def noonu dafa wane ne moom yëg na ma te moom jeune la man jeune la mu xam ne ñun avenir bi mi ngi suñ loxo. Mm. moo tax euh, mu def lii te lii mu def nii dina xam ne defal na ko gor. Mm-hmm. parce que man ku ma fay ku ma lebal naaj ma fay la ker mm-hmm. ndax euh, du bii lañ ma mës a tuddee mais tamit euh, man nu mu ko defee man moo ma neex te a impression impressionné ba nga xam ne tey mm-hmm. satisfaction totale laa si am te incha allah rabi bu bés baa dinañ xam tamit Moustapha Tall moom képp ku nga xam ne ku koy ku koy lebal rek lebal ko lu baax soo ko lebaloo lu baax da nga gis ni Euh, dina la fay ba wis la. Mhm. te it euh, Jamaïcain dama koy encouragé dama koy gën a wax ko fu mu ko teg foofu la. mu mhm. ngi góorgóorlu bu yàgg ba tey ma koy gis euh, muy tëgg ay làmb yu mag a mag mag mag. Mhm. di si investir moo tax jeunes yi dañu war a conscience yi nii ñoom ñoo war a defar ñoo mën a defar seen ëllëg. si naka la ñuy defaree seen ëllëg mooy jël ay initiative yu mel ne comme yu Jamaïcain jël. di di di organiser ay bés yu mag a mag mag mag. loolu dañ ko ci encouragé di ko wax ne ko fu mu teg tànkam foofu la. Hmm. na continuer léppay baax. naka nga nar a ñëwee ci bés bi yow ak waa ndax sëñ Iba Mar Diop dëgg la la mais ñaari mbër boole tamit combat derby la revanche la. parce que PAM mooy bëri grand combat bi dafa bool dafa mujjee a ñëwee waa Fass ak naka nga nar ñëwee ndax boo yeexee moom yow ak waa Yoff boo matul doo leen dugg waaw man euh, comme lu lu may lu may gars yi di tooñee rek nee nañ man dama bëri bruit bëriwuma bruit sax xam nga tey boo nekkee si benn dëkk muy fu mel ne Yoff di œuvre si social di dund di dund ak ñoom lu rafet euh, dañuy dem ba nga xam ne da nga leen di gënal seen bopp te waa Yoff dañ ma bëggal seen bopp te yàlla rek tax waaw ñoom dañ ma dañ ma dañ ma dañ ma dañ ma fonk dañ ma tamit teg foo xam ne tey dafa dem ba sutma moo tax ma xam ne tey ji foofu noonu narul yomb est-ce que sax man rek rek rek du ma feesal stade bi. parce que yoof cat ba cat kër Limaamu ba kër Baye euh, kër kër Baye Youssou Dieng nga euh, nga dem Ouest Foire Nord Foire Cité Nouvelle yëpp kër goo fa dugg Moustapha Tall lay safoo moo tax ma xam ne tey bës boobu di du yomb. bés boobu ku yeex moom du place. ku ne ku ne ku xam ni dëkk cosaan la. ndax kon mën nañoo xaar tey booy ñëw maanaam lébu gi gunge la ñu gis fa gumbeeg ndaw bi yaa xam naa ne yaa ma gën a xam yooyu sax waaye gis nañ parfois bu amee ci stade stade bi dina yëngu est ce que mën nañ xaar Moustapha ñu accompagner ko le huit incha allah. incha boobu noonu par force dafa war day am parce que ñun ku ñu xam ne yoof la ñu dëkk te it yoof culture am dañ koy bëgg di génne partout dans le monde dañu bëgg yoof gën a siggi euh, te it yoof Euh, ñëpp gën ko ràññee ñëpp gën ko xàmmee si aada ak cosaan moo tax lépp lu nga xam ne xew na rek ñu boole ñu rek dañuy fësal culture lébu ak culture yoof waa ba nga xam ne tey yoof dinañ xam ne nag dafa riche culture ba nga xam ne tey euh, képp ku nga xam ne muy seetaan muy nit kuñ ñuul muy tubaab muy ku muy mën di doon da ngay gis sa bopp si waa yoof ñun loolu mooy sunu objectif te loolu mooy sunu mooy sunuy rêve fexe ba nga xam ne tey jii képp ku nga xam ne foo mën di nekk ci adduna bi fii ba Alaska boo seetaanee culture culture Yoff waa da ngay xam ne lii nii euh, Yoff rek noo ko am tey loolu ñun dañu ñaan yàlla génnee ko. moo tax ñun duñu ay complexe. di wax ni ñun dañu ay Yoff waa lañ. Euh, fépp fuñ mën di nekk dañ koy teewal fépp fuñ fépp di nekk dañ koy wane. fësal ko ba nga xam ne àdduna bi yëpp dinañ ràññee yoof ba nga xam ne du des ginnaaw. ku ñëw Sénégal da ngay yàkkamti sax dem yoof laajte na ana fan mooy yoof mhm. euh, pour ñëw yoof visiter yoof mhm. mhm. objectif bi lan la ba tax ngay dagaan baatu askan bi pour ñu jël li nga xamante ne moom mooy yoof dénkala ko objectif bi lan la objectif bi du dara lu dul waa yoof ñoo ma wóolu gëm ma bëgg ma ne ma dañ la bëgg a jox sunu maire ndax tey ji euh, am na ñu fi nekk euh, nekk nekk maire yoof mais Euh, waruñu waruñu indi pour man waruñu indi programme ñoom bilan lañ war a teg. wax ne lii lañ war a def lii lañ def. ñu fi jiitu waaw lii lañ def yoof ah fii lañ ko fekk fii leen ko bëgg a yóbbu euh, mais pas programme euh, mais ñun nag dañu ñëw wane suñuy preuve teg jéego teg tànk te jotaguñ loolu xëy na loolu moo tax waa yoof wóolu ma xam ne tey. comme nu ma tegee jéego nii wane samay preuve ak nu may nu may doxalee si dëkk bi tey buñ ma joxee dëkk bi dinaa delloowaat askan bi lu moom. Mm-hmm. parce que tey euh, mayuñu la jaayuñu la saraxuñ la dañ la dénk buñ la dénkee fexeel ba luñ la dénk nga sàmm ko ba nga xam ne tey du yàqoo say loxo. Mm-hmm. tey man si loolu laay si loolu laay dox sa su ne si loolu laay yëngutu moo tax euh, may wax ni. képp ku nga xam ne yaa ngi xëccoo maire wala yaa ngi xëccoo benn ndombal tànk na nga fexe ba nga xam ne tey luñ la jox nii ah, loo si mën di def muy lu baax mm. euh, di nga si am ngërëmal sunu borom di nga si am ngërëmal nit ñi bu dee lu bon si am ay daanu yu nga xam ne sunu borom moo koy teg di si am daanu nit mm. moo tax njiit yi dama leen di ñaaxaat euh, ñu fonk askan bi parce que loo mën di am ba yëkkati mbagg ba ba ba di xoggaleku askan bi ñoo la ko jox mais askan bi nag bu ñu la joxee loolu danga leen a war a respecté delloowaat leen seen cër mais gars yi dañuy dañuy fexe ñëw ba euh, nu nu ñu koy waxee sax ba jël luñ jël lu ñu soxla mm-hmm. après nag fàtte askan bi wan leen ginnaaw mm-hmm. tëj seen i porte yéegal seen i verre ku leen woo duñ la wuyu changé seen i numéro mm-hmm. man sama numéro téléphone bu ma yor depuis 2005 la ku ma xamoon ba tey si may woo ba tey changé wu moom laay wuyu. da ngay wuyu appel non appel moom bu man di ñëw dama koy wuyu. am ay projet tamit pour pour pour xale yi ak jigéen ñi ndax gox tamit yaakaar naa ne ay xale ak ay jigéen ñoo koy doxal. waaw parce que ñun sunu sunu projet lu si ëpp doole mooy xam nga tey. soo dee tabax dëkk à la base ngay commencé muy si xale yu ndaw yi mm. am na suñu ay partenaires yu nga xam ne ñu ngi doon liggéeyandoo ñoom def nañ ay cantines scolaires pour xale yu ndaw yu nga xam dañuy jàng si école yi CI ba CM2 ñuy mën di ndekki gratuite te duñ fay dara. waaye ak euh, amaan nañ tamit euh, yeneen projet yu nga xam ne pour euh, pour pour pour pour femmes yi la am nañ yeneen projet tamit yu nga xam ne pour si wàllum wàllum wàllu wàllum géej gi. Mm-hmm. ñu fay nekk di fa jaayee di teg seen table di fa daan seen doole ñoo yor seen ñoo yor seen njaboot. Mm-hmm. yor seeni doom di leen fayal école. di di joxe dépense parfois damay gis euh, ñu leen fay jëlee di leen bundu tu loolu noonu war nañ leen mën a organiser ba nga xam ne tey dinañ mën a liggéey faj seeni soxla tey te problème du am loolu yëpp ci nguur gi lay ci ci ci euh, ci ñu yor mairie bi ñoom ñoo war a ñoo war a xam na lañuy ñuy organiser nit ñooñu mais pas di leen bundu xataal tey ji nga jiite benn dëkk di sonal di sonal nit ña nga jiite di leen bundu xataal fu ñu lal nga ne du fii lu ñu def nga ne du lii ah ñu war a liggéey taral seen njaboot nga aay leen ko kon kay yow defaroo dangay ngay yàq. macha allah te képp kuy yàq dañ la war a jëlee fii moo tax may wax benn wax. ne nit ñi le 23 janvier rek la ñu xalaat. le 23 janvier bi moo tax lu na la ñuy def muus bu deewee sax ñu dem seetu ko. mais nag nañuy xalaat le 23 janvier day jeex. Mm-hmm. day jàll bu jàllee après lan nga war a lan nga lan nga lan defal dëkk bi. Mm-hmm. fan nga war a yóbbu dëkk bi mm-hmm. loolu tamit lu mat a bàyyi xel la en plus 23 janvier bu jàllee boo amee ak boo ñàkkee yëpp euh, nan ngay mën a xoolatee nit ñi bu fekkoon ne da nga leen wax lu nga xam ne du dëgg da nga leen digoon lu nga xam ne lii nii kat mënoo koo def mm-hmm. boo deme ba defoo ko nan ngay jaaraatee foofu mm-hmm. man nit moom ma moo ma gënal politique man politique jarulu ma may wax lu du dëgg jarulu ma may noonoo kenn jarulu ma may xiiroo kenn moo tax ma naan képp ku nga xam ne candidat nga nañ ko def si sérénité. Mm-hmm. ak jub ak teggin ak tey. Mm-hmm. parce que lu la yar mayul dara mënu la ko may. nañ leen tape xol yi. Mm-hmm. boole xol yi bañ a xuloo bañ a xiiroo a xam ne lii yàggul dafay jeex. macha allah waaw. loolu am na solo olof ni ko olof di waxee rek sàmmkatu mboot moo xam ba ci moo ci ba ciy soox kon nag waa Yoff xëppi leen ngeen xool 5000 francs ak 10 000 francs bu mu tax kenn jaay sa ngor wala nga jaay sa carte. comme moom am na ay objectif am na ay projet pour xale yi ak jigéen ñi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax Jamaïcain foog nga ñëw sànni ci ñaari kàddu ak jili jili awi jam bismillah le Benjamin Benjamin tey yam ak ci promoteur yi ci loo nekk mbaa yaa ngi ci jàmm sant yàlla bu wér euh, sant yàlla bu baax a baax juri Seydina Mohamed sang-sang yi san suñu ñaari waajur sant euh, suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima Niass di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp nuyu waa Touba waa Tivaouane Canaba Ndiassane Cambérène Ngor Yoff Wakam fépp fu kilifa diine nekk ci réew mi rek ñu ngi lay tàllal loxo di sàkku si yow ñaan te di ñaanal di nuyu tamit Lamine lu waral jotaay bi ñu njabootu làmb yëpp di ko dalee ci ministre di nuyu waa di nuyu tamit kër kilifa gi ñu toog muy DC Moustapha Tall futur maire de Yoff wax dëgg yàlla mu nekk koo xam ne euh, mu ngi ci njabootu làmb ndax day dimbale ñu ne ci njabootu làmb ñu ñun suñu nekkee ay xale nekk ci làmb di liggéey mu apprécier sunu liggéey ñu dënmal bés sentir ko ci mu apprécier bis bi nangul ko boppam duñ def lu kontaan ci ñaanal ko yàlla yàlla defal ko jàmm bu baax a baax ñun nag li ñuy wax rek ci làmb la ñu nekk waaye ku jël engagement ci ñun ñu jël engagement ci yow hmm. waaw réew mi saar ñu mel nii lañu soxla te président Macky Sall tamit saar ñu mel nii la soxla ndax mënul tamit fu nekk mu dem dugal fa loxoom wala fu ci nekk mu dem demal fa boppam waaye day soxla ñu nga xam ne ñu ngi ci wetam di ko jàppaleel jeunesse am di ko jàppaleel ndawam ñi di ko jàppaleel ay jigéenam di ko jàppaleel doomam te gis nañu loolu ci moom kon nag dañuy wax ñëpp nañu jog ànd moom jàppale ko ndax ku faloogul di jàppale nit ñi bis bu faloo jàmpadaan la leen defal ramdi la bokk. bu amee taxi dugal la ci. kon na waa Yoff yëpp xam fan la ñuy dugal seen carte xam kan lañuy ñuy xam ko am si ñoom njëriñ DG ngi jeune la comme ñoom bëgg na ndaw ñi bëgg na waa réew mi bëgg na waa gox bi. wóolu nga ko daal pour avenir Yoff. non Lamine ñun doxuñ ci ay caaxaan suñu gisoon suñu gisoon ci moom loo xam ne nii affaire da ñàkk fayda la wala amuñ ci moom kóolute wala amuñ ci moom gëm-gëm duñ ñëw di wax ak moom wala duñ ànd moom. ndax nag nit ki ci lu mu am rek ci loolu la la mën a dimbale. ñun làmb la am làmb la ñu yaakaar liggéeyam ak ñi nga xam ne ni ñu ngi ci njabootu làmb mu leen di jàppale den teral ndax millier boo dem boo si jàppalee kenn jàppale nga ñëpp te yow xam nga ñu ne ci njabootu làmb du benn du ñaar mu leen di defal teraanga di leen di jàppale. commencé ko ci kon yaa ko tudd sax. tey ko gis mu koy wulli dafa nekk ci bes waaye su nekkutoon ci bés tey dina ñëw teew fii. kon nag ñun suñu gisee kuy def loolu ci njabootu làmb ah ñun ñooñu lañ am làmb lañ am amuñ leneen lu dul waaw lu ñu ne daal ku ci taq ñu taq ci li nga ne te ci kàttanu yàlla le huit mooy ouverture campagne bi stade lay ubbee campagne am ji moom bu yeboo ñu ne làmb politique la. waaw man ragaluma loolu ku ànd ak man ma ànd ak yow. dinañ politiquer làmb ji làmb ji weesu ñu ànd ak moom campagnal ko jàppale ko. gunge ko ba mu dugg maire Yoff incha allahu rabi. macha allah léegi gumbe beeg ndaw rabin bi nga xamante ne nag gars yi loolu bëgg naa ngeen waxtaan ci de ñoom gars bés bi bésam la tey bés bi képp ku dëkk Yoff wala képp kuy dund làmb wala képp ku bëgg a jàppale réew mi di jàppale jeunes yi àndal ak moom nga gunge ko ci bésam ndax bés du tuuti borom lay tolloog te su fekkee ne ñun dañ mujj a jugee Iba Mar ñu tuddee ñu roi de Iba Mar jox ñu couronne bi moom mu war a ñëw foofu dañu bëgg bépp parent bu ñu mës a tuddee làmb moom mu wane ne mooy sa roi ah da nga war a confirmer de. non man moom dina man dinaa confirmer man. wuyul wuyul bàyyi ji waaw xam nga. te moom nee naa daa may supporter moom nee daa may xam nga boobu parrain bi ñëwuloon ñu tuddee ma roi de Iba Mar jël couronne bi jox ma. man damay confirmer sama roi waaye moom tamit dañ bëgg la huit ñu wane ne képp bépp parrain bu mos dugg Iba Mar mooy sa ndax gis nañ parrain bu fa mujjoon jël maire yeeg ñëpp indi leen jël ñaari turbine waaye kii incha allah rabbi ñeenti turbine yëpp lay feesal. macha allah si ñëw ñu baasal kon waa Yoff yëpp nañ génn jàppale ki nga xamante ne moom mooy Moustapha Tall seen doom futur maire lan lan la nar a def ñaari mbir yi ndax soxla nañ ndimbal souvent nag ci ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tuddee grand. waaw ñaari mbër yëpp samay xarit lañ euh, taqe euh, combat bu mujj man lañ ko tuddee Pam Doy magam sama xarit la sama doomu ndey la ñuy lagrose ñu seq teraanga nag lu lu bare bare bare bare mu may jàppale si yu bari moo koy jàppale si yu bari moo tax ñaari mbëri xam naa loolu moom <laughs> privé la mais samay nit lañ daal. waaw côté hmm? ma sama làmb bu fees rek damay rakk. waaw day fees dal moo tax ma ne ma ne côté loolu privé la samay nit lañ. waaw. kontaan nañ ci yow bu baax a baax kàddu gu mujj gi lan lay doon. waaw kàddu gu mujj gi mooy ñaaxaat jeunes rek ñu gën a gëm seen bopp xam ne xale dafa war a am lu mu bëgg am lu mu gëm xam fu muy dem loolu su ko defee rek incha allah lépp lu mu yootu da koy jot man nag euh, jeunes yi laa fi nekkal te it ñoom laa mën a wax ndax man jeune laa moo tax it euh, daal lu ñu man si. combat bi dinañ ko def dinañ def luñ man ak luñ manul tamit di si woo waa gi yëpp di si woo waa Touba di si woo waa Dakar Sénégal ñëpp ñu nga xam ne dañuy safo làmb ñëpp ñu nga xam ne dañuy dañu bëgg làmb maa ngi leen si woo te am naa si tamit nit ku am naa si tamit mbër mu nga xam ne yoof la dëkk te it Brioche Dorée maa ngi woo waa gi yëpp ñu accompagner ko jàppale ko ba mu jël ndam di wax tamit euh, sunu équipe nationale bi comme que ñu ngi waaj euh, Coupe d'Afrique bi ñun ñun ñëpp mànkandoo ñaanal leen pour euh, ñu indi résultat final muy ñu jël coupe bi indi ko Sénégal parce que bu yàgg ba tey ñu ngi siy daw te amul benn équipe bu nga xam ne gën na équipe bu Sénégal tey chance lañ xaw a manqué ak ay ñaan mais ñun ñëpp nañu mànkoo boole xol yi tàppe xol yi ñaanal suñu équipe nationale ñu indi ndam maa ngi gërëmaan ñëpp di gërëm bu baax a baax waaye CPJ nay leer muy parti politique bu ma nekk di gërëm Demba Diop si mu nga xam ne mooy sunu président parti di gërëm tamit Diouf di gërëm tamit euh, waa CPJ nay leer yoof ñëpp ñëpp ñëpp cat ba cat ñoom Pam Ngom ma Demba ñëpp ñu mm-hmm. xam ne ñu ngi CPJ di gërëm tamit euh, les ambassadrices euh, de Moustapha Tall di gërëm Leila Nguer mm-hmm. di gërëm ñëpp nu nga xam ne ñu ngi soutenir Moustapha Tall ñu ngi jàppale Moustapha Tall di gërëm sama yaay di gërëm sama jabar ak samay xarit ak samay. noonu la demee rendez-vous bi samedi la incha allah rabbi stadium Iba Mar Diop diggante Pam Ndoye ak Taxe drapeau Moustapha Tall ñu ngi leen di jox rendez-vous foofu incha allah jërëjëf.